dafa àtte loolu ba pare ndax Macky Sall bi mu bëggee wàññi mandaam moom moo laaj conseil constitutionnel. conseil constitutionnel bind dafa bind waxul bind ni mandat bi kenn mënu koo wàññi waaye kenn mënu koo yokk ñaar yëpp la bind. mënuñu koo wàññi mënuñu koo yokk kon nag atte boobu bu conseil constitution dafa leer ba pare. ñu ngi wax nag léegi ndax léegi am nañ droit laaj conseil constitutionnel mais kooku war waruñu ko woon laaj ci Sénégal parce que Macky moo ko jiitee laaj ndax am nañ droit boobu am leen Macky ko laaj ba pare ba ñëpp teg ci seen bët kon nag bu ñu nee tey conseil constitutionnel mënul ko <laughs> mënul kii ñu ngi wax la loo xam ne ñoom def nañ ko ba pare kon lu ñu mën a xaar ci conseil constitutionnel parce que fi mu ne ñëpp ñoom la ñuy déglu conseil constitutionnel li ñëpp xaar mu wax li mu waxoon laaj ñu ko mu wax lu bees na wax li mu waxoon mandat bi kenn mënu koo wàññi kenn mënu koo yokk loolu lañ koy laaj na wax li mu waxoon léegi nag ci loolu lañ koy xaare xaaruñu ko ci leneen est-ce que yow yaa ngi doon xaar président Macky la ci fii dakk élection présidentielle wala daf la bett xam nga dinga nga ni nit bu nekkee nit même bu bëggee dara du ko ñeme Macky Sall ñëpp xamoon nañ ni ci bëgg-bëggam bëggoon na des ci bëgg-bëggam mais ñëpp xalaatoon nañ ni nit la ndax boo nekkee nit am na yoo xam ni mënoo ko def waaye bu fekkee nii danga xool bëgg-bëggu Macky sàll du la bett ndax yàgg na wone ni pouvoir bi bëggu ko joxe surtout am na ñoo xam ni bëggul ñu jigéen pouvoir parce que xam na ni ñooñu bu ñu jëlee pouvoir bi tey foog mu rendre compte li mu def yëpp. mooy ñu bari ci opposition bi ñu fi tëj dafa bari tëj na Karim Wade tëj na xalifa sàll tëj na Sonko tëj na Diomaye mu ñi mu tëj dafa bari sa fi ne boo seetloo élection yi ci li ñuy jëm ci foofu la ñuy séentoo ñu ñaar a réew mi tey sa ñooñu bu ñu jëlee réew mi foog mu fay borom waaw ah, ndax peres dana boo mayul danañ fayantoog moom. Karim Wade foog mu fay borom ak fu ñu mënti jaar dina fay borom. ndax fay bor bi sax du fayonte mais dafa xam ni bu ñu la defee njiit am na yoo xam ni waroo egg njiit day topp yoon wane yoon wane conduit bu baax conduite exemplaire. Mhm. wante bu fekkee ne def nañ la njiit jox la xaalis bi nga passé passé xaalis bi moo la neexee jox la doole réew mi nga jël ko di wax ni dinaa réduire l'opposition à sa plus simple expression ndax jox nañ la doole réew mi mm-hmm. parce que sa doole bopp loolu yëpp ku ko def bu ëllëgee foog nga fay ko sa Macky sàll fay boobu lay ragal tey kon yow su ma la déggee euh, Macky Sall fi mu mën nañoo jàpp ne du nit ndax li mu def parce que da ne euh, kuy nit am na yoo xam ne doo ko def. nit xel la ak xàmme ñaar yooyu ñoo bokk ci xel yàlla daf la ko jox pour nga am xam-xam am gis-gis xàmme li tubaab di woowe conscience nga xam lu baax ak lu bon. ñaar yooyu bu nekkul ci nit nit dootul nit sa Macky Sall tey askan wi ni ko def wane ni ñu du nit kon boo ko tegee foofu comprendre nga li tax ñi nga bokkal gauche bi te ñu euh, nekkoon ak moom ba tey génn ci ba set ndax gis nañu communiqué ñoom Landing Savané RTA-S ak yeneen i parti de gauche yoo xam ne ñu ngi woon ak moom ñu désolidariser wu ci rapport bi euh, ak euh, lépp lu ci topp waaw nee na mieux vaut defe naan li ñu def ci époque bi wane na ni ci seen gëm-gëm am na lu ca des ba limite bi egsi nañ fa limite boobu moo leen taxaw fi mu ne féqu féqu nañ man dama d'accord ak ñoom ci li ñu féqu ndax fi mu ne nit kuy nit rek fi mu ne waratoo nekk ci wetu Macky Sall. jàppoo ne yéex nañ ko bàyyi. Hmm? jàppoo ne gauche bi yéex naa dem. est-ce que li fi xew yëpp méngóo na ak yéen seen euh, doxalin ak seen. gauche bi mu waree dem yàgg na. moo tax ma ne le mieux vaut tard que jamais. Mhm. waaw ba ñu yàggee war a yàggee dem dafa yàgg ndax li fi xew ci réew mi gauche justice la démocratie. solidarité bu fekkee ni yow homme de gauche nga gis d'abord ñuy jël ci réew mi nii di enrichir nii di appauvrir mënuloo ko nangu comme homme de gauche homme de gauche mënul nangu loolu au contraire homme de gauche dafa bëgg ñi riche jox ñi pauvre pour que ñi pauvre am lu ñu dundee loolu la homme de gauche bëgg ñaareel bi homme de gauche démocrate bu fekkee ni gis nañ ñuy arrêté nit di emprisonné nit ci ay ay accusations yoo xam ni tegewul fenn homme de gauche bi daf ko war a xeex yooyu yëpp dafa xew ñu ngi leen ci doon déglu ñëwuñu mais bi yoon ñëw nañu du ñu def loolu tàccu leen. mieux vaut que jamais ni nga ko waxee. bu weesoo homme de gauche yi CEDEAO aussi gis nañu ci ñaari communiqué yu mujj ñu mel ni ku lâché Macky Sall communauté internationale bi également euh, Sénat euh, américain France assemblée nationale euh, France dégg nañu député yi kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko di sàkku sax ci seen réew mu jël une position officielle ci li xew Sénégal est-ce que pression boobu jàpp nga ne mun na tax président Macky Sall reculer. Macky dafa egg foo xam ni pour mu dellu ci ginnaaw dina jafe. Hmm. waaw dafa egg man loolu mooy sama xalaat. il de non euh, am na yoo xam ni boo fa eggsee dellu ci ginnaaw day jafe et Macky looloo ko dal fi mu nekk. Euh, xam nga mës nañu fi waxtaan nga ne lan mooy limitam mhm. ma ne la limitam kenn xamu ko ndax yi dafa niroog fi mu ne une bête blessée et dugg na foo xam ni léegi day wax ni naa naa dem rek ba jeexal naa dem ba jeexal. fu mu yem neex. waaw loolu laa xalaat ci comportement yi ni muy doxalee parce que bu xalaatul woon loolu. lii ñu egg si tey duñ fa egg si. àddina yëpp di wax nga tëb. waaw duñ fa egg si ah, ñëpp di wax mais même ñi nga xam ni ñoo àndoon ak moom di ko mm. jàppale muy fii ci biir réew mi mbaa ci bitim réew ñëpp dañu obligé ni lii nag ëpp na mënuma cee egg mm-hmm. lii dafa ëpp. mais yow Macky mi nga xamoon ba LD àndeek moom. Mm-hmm. ak Macky mu tey mi fi mu yegg si lan nga jàpp ne moo xew ci diggante bi ba jur lii lépp. bi ñu àndee bu fekkee ni nit ñi daan ma déglu bu baax a baax dama daan wax ni président war na di def concertation bala moo jël yenn décision yi ndax bu deful concertation njuumte yu bari dina am ci réew mi dama ko daan wax ci kaw daa ma ko wax ci suuf boobu daawul concerté wax naa ko ci tey eh, nak ngay jëne jëlee lu mel ni plan Sénégal émergent nga ne damay def plan pour réew mi ba deux mille trente cinq yow eh, eh, ñi nga xam ni ñoo yore économie bi waxtaanook ñoom travailleurs yi waxtaanook ñoom parti politique yi waxtaanook ñoom parce que deux mille trente cinq nga jëm deux mille trente cinq ay alternance yu bëri xaj nga fi. donc boo bëggee plan boobu dox yëpp da nga war a am large consensus. Mm-hmm. et puis acteurs yi nga xam ni ñooy acteur u économie bi ak acteur société bi mm-hmm. buñ ko jàppul ba dëgër <laughs> ci plan boobu day mel ni plan bu nekk en leer rek. da tegul fenn loolu Macky def na ko. critiqué naa ko publiquement. nit ñi daan ma wax ni waaw war nga ko wax ci biir wande waroo ko wax ci biti ma ne leen man lu may wax ci biir moom lay wax ci biti ndax bu ëllëgee dañ may laaj lu tax waxoo ko woon. mais yow daan nga ko jéem ma conseiller wala amoo leen woon boobu relation. bi ñu nekkee ensemble man ku ma nekkal sama devoir la pour ma conseiller la ndax loo def lu tilim man dama ciy tilim. dëgg la looloo tax loo def lu tilim. dama ciy tilim. comptable nga ànd comptable nga ci bilan bi kon nag bu ñu àndee foog ma lay wax li ma xalaat foog ma la koy wax. Mhm. alors lan leneen nga jàpp ne moo xew indi Macky sàll ci fi mu toll nii. ah fi mu ne kay <laughs> ñépp a nekk ci jaaxle. Mhm. wóor na ma ni moom ci boppam mi ngi ci jaaxle. Mhm. réew maa ngi ci jaaxle ñëpp a ngi wut yoon woo xam ni ci la ñuy génnee ci kan bi ñuy dugal ndax fi mu ne ci biir kan bi naka lañ ciy génnee loolu mooy xalaatu ñëpp fi mu nekk. fan nga jàpp ne foofu la bëgg a jëm lan lan moo nekk ci boppu président Macky Sall jamono ji ci sa xalaat lan la bëgg. li mu bëggul xam naa ko. li mu bëggul. waaw. li mu bëgg wóoru li mu bëggul mooy am na ñoo xam ni candidat yoo xam ni retenir nañ leen ci vingt yi sa bëggul ñooñu arriver jamais au pouvoir ñan la wax naa leen ñi nga xam ni bundu xaatal na leen yépp tëj leen kaso def leen lu metti bari ci candidat mais bu dee Khalifa Sall dialogué na woon ñëpp jàppoon ne xëy na ci dialogue bala rek de problème bi Karim Wade aussi euh, PDS demoon na ci dialogue bi waaw dialogue dem ci dialogue du promesse boo xam ne da koy def ni bu ëllëgee kii duma ko jaarale ci yoon dem ci dialogue taxul <laughs> loolu am kon nag dem ci dialogue am na ñoo xam ne dañuy dem ci dialogue parce que lii lañ ci gis mbaa leen lañ ci gis waande du benn promesse ni yow mii defoon lu bon ëllëg euh, defoon lu bon démb mbaa tey bu ëllëgee doo ko fay dem ci dialogue waxul loolu mais waxoon na fi ku dialoguewul da bokk donc Khalifa ak Karim bi ñu demee ñu jàpp ne dañuy bokk et que duñ indi benn gàllankoor ci seen candidature est-ce que li ma bëgg a wax mooy en réalité du candidature Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ne mooy euh, euh, candidat wu Ousmane Sonko moo posé problème am na ñuy wax loolu am na ñoo xam ni loolu mooy seen xalaat man sama xalaat c'est plus large pour man bëggul kenn ci kandidaa yi nga xam ni def na lu leen metti kooku jël pouvoir bi ëllëg man loolu mooy sama xalaat am na ñoo xam ne nag nee nañ te wax nañ ko ma am ci ay journaux ni Bassirou Diomaye Faye mooy problème am parce que Bassirou Diomaye Faye pour moom islamiste la te daf fi installé régime islamiste mais man dugguma ci loolu loolu dugguma ci. loolu de benn journaliste français nee na. wax na ci président Macky Sall. mu ne ko moom lim ragal mooy réew mi tàbbi ci loxol islamiste. waaw ma ne loolu pour man ci pexey Macky la bokk wante loolu mënuma koo jàpp parce que loolu jàpp ko mooy. booy xeex ànd ak ñooñu. yow it yaa ngi xeex pour que pays bi nekk pays islamiste loolu la signifie kon loolu aussi pour jéem a tas ay rassemblement yi loolu tax moo tax nanguwuma boobu tey. d'accord mais soo jàppee ni buggul Karim Wade bokk buggul xalifa Sall bokk te moom li ñu éliminé Karim Wade. xëy na daf ko métti loolu la ñëpp jàpp ba mu wax parteem nañu dem ci euh, commission d'enquête parlementaire bi jàppale les députés euh, euh, libéraux pour que ñu leexal mbir mi est-ce que kon mun nañu jàpp ne moom moo nekk même derrière problème Karim Wade yi su fekkee li nga wax raisonnement boobu lañ topp Macky Sall candidature Karim Wade du candidature boo xam ni Macky Sall mi ngi koy soutenir kon li muy def nii lan la. wut prétexte bu mu bu mu bu mu. dàqee élection yi dàqee mais musul soutenir candidat ru candidature ku tere Karim nekk candidat depuis deux mille dix neuf woote du moom loolu loolu taxul du affaire candidature Karim de candidature Karim pour moom prétexte. moo tax bi ñëlee posé candidat yu ci pare mu ne ay député am nañ ko jàppale. pour def semblant. waaw pour créer situation bi ñuy vivre tey. su ma indiwaatee sama laaj bi lan la bëgg. kon baa du toog ci nguur gi ba faw toog ci nguur gi ba moom moo gën a xam ni munu ko fi mu ne commencé na dàq élection yi. bu fekkee ne loolu réussir na ci moom ñëpp xam nañ deuxième étape bi lan la deuxième étape bi mooy naka lay fexe ba candidat yi nga xam ni bëggu leen mu affaiblir leen pour jéem pousse beneen candidat. indi keneen. waaw fi mu ne bu fekkee ne li muy def réussir na mm-hmm. wóorul na dina réussir. wóorul na dina.